jërë ngeen jëf mbokk yi internet comme ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, jaajëfal euh, te fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen euh, xibaar revue de presse tey jeudi 28 avril 2022 ñu koy ubbee ak yéenekaay journalu populaire mu daal di xëy ak ñun ci xëtam gu njëkk wàllum politique daal di ci fësal kii nii di Woré saar nee na nag jot na ñu daal di fippoo ngir ko Karim sa Wade defaat retouram ci réew Sénégal ndax bu dara dul dara moom moo nekk seen candidat ci élection yi nga xamante ni ci di jub si muy élection 2024 yi incha allah rabbi yamul foofee nag kii nii di Lamine Ba euh, moo ngi duut baaraamu tuuma suñu njiitum réew président Macky Sall di ko yëgal ni euh, fukki attaque ñaar rek mu daal di euh, acharné wu ci Karim sa wadd loole nag doyu ko mu jàpp ni ambition bi mu amoon ngir daal di yàq PDS une bonne fois pour toutes rêvam yooyu yëpp dafa daal di brisé ba tax na nag jot na mu daal di baisser les bras te xam ne kii nii di Karim sa wadd ñëwaat ci réewum Sénégal te moom moo fa yéene nekk président euh, ci atum 2024 bu soobee yàlla directeur de campagne daal di nay euh, lancé ay kàddu yoo xamante ne doy na waar lool waaye tamit di tiire ci euh, régime bi ngir ñu daal di defaat beneen mobilisation de troupe benn Bokk Yaakaar département ca diwaanu Podor nag ñoo ngi yëgal ne Cheikh Omar Diagne daal di ne la barre des cinquante mille cinq cent soixante dix parrains yoo xamante ni euh, jot na koo defagum te euh, élection yegg seegul daanaka desaat na ñaari weer ci kanam Benno Bokk Yaakaar jamono ji daal di nay euh, collecté lu toll ci soixante treize mille trois cent vingt trois signatures su njiitum réew ñu daal di koy fësal. mu yëkkati lu toll ci 43 milliards de francs CFA yoo xamante ni askan bi la ko daal di euh, nar a séddale rek mu nekk cash transfert loolu nag mi ngi euh, concerné lu toll ci 542 euh, 956 ménages yi ñu répertorié ci registre national unique bi ñu koy wax RNU loolu nag ñu ngi ko fas yéene démarré bu soobee yàlla le 10 mai incha allah en présence des forces vives de la nation 43 milliards de francs CFA cette fois ci nag nekkul ceeb boo xamante ni dañ koy jël jënd dawlin loo xamante ni day tax askan bi di génn di uh, buuxante ci mbedd mi mais cash transfert lay naro doon ñu koy uh, envoyé uh, ñenn ñi nga xamante ñooy ménage yi feeñ ca registre boobee waral nag ñu daal ni à deux mois des élections législatives boo moytuwul lekk cash transfert boobee suñu njiitum réew euh, fa seenee amal dina créé waat ay tension politique ci réew mi noonu la ñuy jaare nag daal di euh, dugg ci journalu libération euh, ca xëtam bu njëkk mu daal di ñëw ak ñu lekk ci naka rek tiis bi xew ci diwaanu bar ñi foofee nag at gone gu toll ci juróom-ñaari at ñeneen ñi naan juróom-ñetti at ñu koy wax Anta Ndiaye a ñuy faat bakkanam ci anam yoo xamante ni doy na lool ñoo ngi ko fekk ci bakkanam 48 heures lañ ci teg rek takk dari daal di teg loxo ñu def boobee xeetu ñaawteef démb la yëgal ni Mamadou tudd waaye turam dëggantaan mi ngi nekk Mamadou ba tollu ci 17 ans nekk ab jeune tailleur moom moo faat bakkanu Anta Ndiaye moom nag foofu la juddoo fa la màggee fi la yaroo li ko waral nag du lenn lu dul ki nga xamante ni moom moo ko feeñal nekk tey mbuub la ñu wax moom mbuub moomee dañ ko xëy yónni pour mu daal di dem jënd këriñ ba mu demee àndaale ak Anta Ndiaye na benn maxana kii nii di euh, Mamadou Ba woo ko ni ko dama la soxla ndax sa cousine bi dafa daal di rompre sama relation ak moom mu nekkoon cousine direct euh, ci Anta Ndiaye waaye tamit cousine ci Mbuub moomee ba ñu demee euh, di waxtaan ca immeuble boobee rek ci la at gesu gis Anta di ko xool mu ni ko noo may xoolee xoj ko ba mu daal di ñàkk bakkanam loolu moo nekk version bi nga xamante ni moom la soxna sa wax waaye li gën a tax ñu yokk feeñ du lenn lu dul nag bone wu bébé ba mu yoroon ndax ndaw sa ba muy daw dafa dem bàyyi fa bone bébé bi takk der yi nag ba ñuy enquête rawatina ñi ni di police scientifique bi ndax ñoom ñoo defoon naa descente sur les lieux bone ba moom moo daal di euh, prêter seen attention ba ñuy laajte ba xamante njaay mi génn àdduna moom moom bone bi am déet way juróom bu jigéen dañuy déedéet moomu ko woon te ba mu koy mujjee gis takkul woon bone bu ni mel ci la benn ci seen voisine defee déclaration ni liir bi mu jur euh, ci euh, biiru boppam moom moomoon bone bi euh, te ba mu xëyee la ko takkaloon en un moment donné tamit daal dinay jël gone googee jox ko mbubb mi àndoon ak Anta ba ñu daal di fàtt bakkanam foofu la révélation yëpp génne waaye ba suñu joon yàlla tey ji ki nga xamante ni lu jig njàkk moom mooy njàkk ñu koy wax Mamadou Ba te ñi ñu gën koo xam ci turu mëm ma daal dinay reconnaître am relation ak cousine Anta Ndiaye ba mu daal di rompre ak moom ndaw soosee nag màgget lay wuyoo waaye nag waxul benn yoon lu jëm ci meurtre boobee ak lu ci mënti am daal yuuxu daal nay jibee fu ñu ko foogawul woon ndax ñu ci bari ñoo ngi doon jàpp ni période élection dafa ñëw rek sacrifice yi daal di bari ci xale yi Euh, comme ni ñuy faral di ko devancer saa su nekk waaye benn crime parfait wul comme ni ko euh, tubaab bi di faral di waxee rek ba tax na kookee daal dinay feeñ euh, ci ak diir goo xamante ne néew lool donc sax ba suñu joon yàlla tey ji ma ngay continuer di def patt bi waxut ak benn takk der ba tey ci bi journalu Libération ñëwaat nag ñun nag ci passage à tabac filmé ca diwaanu Karim Fatick benn ñaari élève sax la wax ñu def ñaawte vidéo bi démb ba tey ñoo ngi koy seetaan les réseaux sociaux kenn ki tudd Ibrahima Diaby keneen ki nag di yoo ci turu Bara Gaye ñoom ñaar ñëpp jamono ji ñoo ngi ca loxol takk der yi li ko waral du leen lu dul Bara Gaye ginnaaw ba Ibrahima Diaby bëggee woon a dóor kii nii di Lamine Sangaré ndax ca journée ba dañoo amoon benn problème bu ndaw ci seen biir classe ñoom ñaar ñëpp cinquième la ñuy def dafa yónnee Bara Gaye rek ngir mu daal di koy génneel Lamine Sangaré seen biir kër kooku tamit dem ni ko génnal dafa am lu lay wan naka la génn rek Ibrahima Diaby daal di koy song di ko dóor ko yoo xamante ni Euh, doy na waar lool te vidéo ba ànd nag am sensible ndax mi ngi koy door ci kanam en un moment donné ba Bara gay nan ko bàyyil euh, kanam gi ngay dóor non seulement dañ koo filmer euh, bëggoon a tasaare vidéo bi ngir humilier ko waaye jamono ji nag daanaka ñoom la ñu daal di mujjee humilier ndax non seulement yoon teg na leen loxo dàq nañ leen définitivement ci école ba te ñii bu ñu moytuwul lekk même bu ñu génnaatee kaso sax pour ñu am école bu ñu jàngee dina doy waar lool incha allah rek ci mois de mai lañ leen fësee ne jugé journal l'observateur lañ koy daal di yaatalee suñu njiitum réew nag daal di nay euh, convoqué benn rencontre ca diwaanu pale ba tey jii nii incha allah rabi ba tax na lu toll ci sa rapport yoo xamante ni euh, jot nañ ko mu jóge ci euh, diwaanu secrétariat exécutif bi ñoom ñëpp dinañu toog ko waxtaanee li nga xamante ni moom moo di liggéey suñu njiitum réew waaye ku ci nekk tamit lañ la sëf rekk dinga ñëw wax ci. tribunal bu Louga démb lañ doon amal procès wu sage-femme yi ñuy euh, du baaraamu tuuma ni ñoom ñoo tax astu soxna daal di génn àdduna pour no assistance à une personne en danger boobee procès nag dañ ko daal di reporter rek ba ñu daal di euh, julli korité ba pare incha allah rabbi li ko waral du lenn lu dul dañu bëgg defaat enquête bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni moo xew ci hôpital bi. waaye tamit nag ba ñu noppee jël décision boobee ñeneen ci seen avocat yi ñoo ngi den plaider ngir ñu daal di leen di may liberté provisoire mbir ba nga xamante ni juge ba da koo daal di bañ. délit bi ñuy waxtaanee dafa bokk ci délit yi nga xamante ni moom moo gën a garaaw ci réew mi. jaaree daal di dugg ci wàllum sport ñu ñëw ak yéen ci journalu record ñu ñuy fësalal Sadio Mané doomu Bambali bi nag l' international sénégalais nee nañu bii bi nga xamante ni marqué na ko démb mu nekk bii bi nga xamante ni nag gën naa fësal waaye tamit gën a firndeel ni Sadio Mané dina jege lii nii di ballon d'or bi non seulement waaye tamit daal di nay égalé ah, kii nii di légende bi ñuy duppee Didier dorog ba tax na Samir Nasri yëkkati na ay kàddoom nee na ballon d'or bi incha allah boo muy tur lekk ci diggante Sadio Mané. Karim Benzema ak Bruyne ñoom ñett ñoom ñoo ko nara a jongante waruñu fee tudd Messi benn yoon ah, ci ren gi wa tax na daal ko ca gën a fës moom Sadio Mané la te moom la ñu gën a am ah, yaakaar diggante Sénégal ak itali Euh, ñenn ci euh, sénégalais yi nag ñoo ngi rêvé Sénégal ak Italie am benn match amical de préparation diwaanu San Siro euh, ngir ka rek ñu daal di dund loo xamante ni gëjoon nañ ko gis walla ñu dund loo xamante ni sax mosuñu ko woon a dund ci diggante Sénégal ak Italie journal suñu làmb lañ ko fas yéene tàggatoowee ak yéen mu daal di indi la ci xëtam gu njëkk Ama Baldé Ama Baldé nag moom nee nañu jamono ji ay tànkam mu ngi ci tànku Tyson ak ki nga xamante ni moom moo di défi bi nga xamante euh, moom la yor rek muy nekk roi des arènes ginnaaw bu tasante ak Modou Xarañ Lo euh, ba nopp incha allah combat ba nga xamante ni nag euh, ba suñu joonu yàlla tey ji ngir mu taxaw ba ni bés bi tey rek nekk na jafe-jafe saa yi buñ ci jubsee am ay gàllankoor yoo xamante ni daa den ci xew fusion wu Fass ak Ndakaaru nee nañu Gris Bordeaux est-ce que du moom mooy mujjee nekk dernier Tigre de Fass ndax fusion boobee du tax ñu daal di arrêté li nga xamante ni moom moo di Tigre de Fass ndax fusion la ñu bu boobaa Fass ak Ndakaaru rek benn bopp lay doon Faye mi nga xamante ni moom moo nekk coach ci école Double Less nee na diggante Baye Mandione ak Zarko dina nekk combat boo xamante ni combat bu nara a metti la yoon du du jaañ de ko yëkkate ay kàddoom moom mi nga xamante ni moom moo di président des amateurs di yëgle ni diggante ragrose Rose ak Amaneex ku ci nekk daal cinquante cinquante nga nar a demee kenn amul ëppul chance sa morom kenn ëppul doole sa morom waaye tamit nag ku ci nekk rek da ngay dem yóbbaale say boo demee njëkk a jekku sa moroom yaay daan waaye tamit ku ci ëpp san sa moroom rek yaay daan mbokk yi ku nuyoo ku nekk di nga tàggoo li lañ leen indiloon ci seen xibaaru revue de presse jaajëfal leen ba benneen yoon